رسول kooku day yonant la xamidun ku ñu sant la ci asamaan ak suufi juróom-ñaar xamidun te ku yeyoo cant ga la wa muhammadun moom la yàlla joxar bi ni ko muhammadun rasulullahi wallazina maahu ashiddaau ala alkufaari ruhamaau baynahum taraahum ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فاذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واستعل الرأس صيدا ولم أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد غنا بن سانتي yàlla julli ci sangi-sanga yi muy seydina muhammad sallallahu Oustaz Ibrahim Assane Thiam ñu laa nuyu di ziyaare ci suñ programme bi exploring Islam gets to Islam am mbégte lool la ñu ñëw uyu si waat ci suñ programme bi bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman kathira euh, ñu ngi nuyu mbokki jullit yi soxna Aïcha Faye yow mi nga xam ne yaay bunt bi fii ba ñu ñëw ci place bi oyisi leen ci programme bi nga xam ne mooy gëstu ci islaam te muy loo xam ne lu am solo la ndax diina lislaam diina la joo xam ne mhm. waxtu bu nekk dafa soxla di gëstu di yokk mhm. xam-xam mhm. kon su yàlla defee yéen ak waar réew mi yëpp dalee ko ci président réew mi ak ki jiite eh, télévision bi ak yéen ñëpp ngeen bokk d'accord jagleel waxtu alquran pour di gëstu lislaam loolu ñu ngi leen ciy jaaraamal di leen wax ne uyus nañ leen ci oote yàlla bismillah oustaz Ibrahim Hassan Thiam mm-hmm. tey nag lañ bëgg a waxtaanee nag si njëriñ yi alxuraan parce que am na yeneen ci téere yoo xam ne yàlla nga ko wàcce zabuur yàlla nga ko wàcce woon si yonent yàlla dawud mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam tawraat si Musa alayhi salaatu wasalaam injil si Isa alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. téere bi ñoo wax alxuraan nag yàlla wàccee ko si sang-sanga yi mu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nge wax si suratul naxli ne wa nazalna ilayka alkitaaban tibyaanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin loolu mooy yàlla dafa wàccee bug bi muy alxuraan mun ëmba yépp nekk bug bu ñoo jubanti ba pare tam am na hadis boo xam ne muslim moo ko solo yal na ko yàlla gërëm mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne nañ jàng alxuraan parce que suñ su yowmal xiyaam hmm. alxuraan dafa nekk xam ne daf ñoo ramu hmm. am na beneen xadis boo xam ne tam hmm. ay ko solo radiallahu anha umil muminin yal na ko yàlla gërëm mu ngee wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne ki nga xam ne mu ngi jàng alxuraan mu ngi ànd ak malaayka yërmande ki nga xam ne mu ngi koo jàng tam ak jafe-jafe yool bi moo am sax ñaari yool lay nekk dañ bëgg nag nga baaxee ñu daal jëriñ ñu jàng alxuraan li tax daal jullit war a góorgóorlu si jàng téere yàlla bi muy alxuraan mhm. ah, bismillah soxna Aïcha euh, dafa mel ne sax topic bi daal moom jeexal nga ko <laughs> li nga jàng ci ay aaya ak li nga jàng ci ay hadith mhm. euh, daanaka luñ ñëwati ci kaw yooyu lay tegu rek mhm. euh, waaye suñu waxee ne alxuraan lan mooy njëriñi jàng ko foos njëriñ bi mooy rek ne ñu xam ne santaane yàlla la yàlla mooy ki nga xam ne kii moo digal jullit yi ne nañuy jàng alquranul karim di ko xam di ko dégg ñaareel ba moo di leetar la boo xam ne yàlla moo ci bind lim soxla ci jullit yi ak lim soxla ci àddunaam bi yépp te du kenn du ko mën a doxal ni ko yàlla bëggee lu dul ñu jàng alquran xam ko dal di koy dégg mu mel ni lépp lu ñu war a ci àdduna ak lu ñu war a jëriñoo ci àllaaxira ëllëg lépp yàlla daf ko tënk ci téereem bi nettali nga téere yooyu nga xam ne ñoo wàccoon ci yonante yële aaye bi nga nettali it waroon na téere boobule muy alquranul karim làmboo na la neexoon ci téere yooya ak leneen loo xam ne newut ca woon ndax da nga ne tib yaa nan li kulli shay mooy leeral lépp lépp mbir mu delloo waxaat ci beneen aaye ne ma farat naa min fil kitaabi min shay amul dara dara dara loo xam ne lii wëcc nañ ko lu tuuti ak lu néew lu bari ak lu rëy lu gën le din def nañ ko ci alquran dal di koy nasili su ñëwee ci njëriñam ñi nag jàng ko danañ fekk ne njëriñ bi ci gën a am solo gannaaw bu ñu defee santaane yàlla mooy ne alquran dinañu waxal naka la ñuy dundee te la gën a am solo ci naka la ñuy dundee moo ñuy jubóog borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax jinne yi ci seen bopp te xam nga alquran suñ ko wàccee wàccee ni ko nit ñiy toogee di jàng di ko mokkal di ko tari di ko xam di ko dégg di ko tasaare jinne yi itam ñoom itam noonu lañ noonu lañ mel moo ta ñoo na jàll alquran ne qul uhiya ilayya anahu stamaa nafarum min aljinni fa qaalu inna samicna quranan ajaba ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi wala nushrika bi rabbina ahada ñun day eh, wax gis nañ alquran joo xam ne wax yu lañ ko indi ko ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñu déglu ko ñun jinne waaye bi ñu ko dégloo nag dañ gis ay kéemtaan yoo xam ne kéemtaani alquran dara melul ni moom moom neexaay ga ak leer ga ak njëriñ ga jinne yi ne kenn mënu ko nettali mhm. loolu moo tax ñun bañ ko gisee dañ ne lii lu kéemtaanu la mhm. waaye nag li ci gën am solo mu ne nag daf lay jox hidaaya mhm. hidaaya nag muy njub su fekkee ne doomu aadama yàlla jox na ko ko bépp yoonin bi muy dundee ci àdduna nu mu war a lekkee nu mu war a solo nu mu war a tëddee nu mu war a tabaxee nu mu war a dawalee oto nu mu war a fajoo nu mu war a jaamoo yàlla lépp mu ngi ci buntu hidaaya nit ñi nag boo ni hidaaya dañoo foote rek mooy ku mën a julli ku mun a ñaan waaye déedéet moom romb na loolu lépp mu ci biiram dundi ni doomu aadama yëpp mu ngi ci biir hidaaya loolu moo tax hidaaya boobule alquran ñëw na ci biir jàng gi ji lañ ko mun a amee moom itam ñëw na itam moom alquran di ñu wax ci beneen aaya boo xam ne loolu lay feddali mu ne آه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم آه، ين جلدي ين يب نغن خمني لير نيونا كون القرآن لير لا لير لا لب لو ñuy لير لو boo بو ne دينا مو mu ngi ma mu ngi maasee wu ci alquran soo xamee soo xamul gannaaw leer la rek leer ak maanaa la leer ak yëg la lépp ci alxuraan lañ ko tibbee dégg nga mu itam téere la boo xam ne bii bu leer la mel ni bu buñ biral la dara lu lënt nekkul ci ah jafe-jafe itam nekkul ci kon loolu alxuraan noonu la ñëwee la ci gën am solo itam mu ne dina jubal nit ñi yóbbu leen ci li nga xam ne mooy ngërmaande yàlla te mooy yoonu njub te mooy yoonu barke dina leen génne ci lëndëm itam yóbbu leen ci leer waaye nag ci kàttanal yàlla parce que képp koo xam ne yàlla dimbalewul la ci kàttanam kenn du la mun a xaj ci daal di la yóbbu ci lëndam ak ci leer ak alquranul karim loolu moo tax nit waxtu mu war a ñaan hidaaya boo gisee tey mu bokk ci xereñ ak lislaam yonentu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla xamal ko ne waxtu wu nekk julli bu nit mën a julli rakka bu ne na ca jàng ihdina siraat al mustaqima loolu moo lay xamal ne hidaaya dafa am solo ci nit te itam du julli gi rek nu tudd yàlla gi rek waaye lépp loo xam ne buntab jàmm la buntab mbaax la buntab liggéey la buntab wér-gu-yaram la loolu dafay dugg ci ihdina siraatal mustaqima yàlla defal ñu ko muy téeñub julli boo xam ne rakk bu nit julli rek balaa rakk ba di mën a wér foog mu jàng ca faataatul kitaab te faataatul kitaab nekk na ca ihdina siraatal mustaqim loolu moo tax mu ne wa yahdihim ila siraatin mustaqima soo xoolee ci foofu na nga xool njëriñ yeboon su fekkee ne jàng ma dana la yóbbu génne la ci lëndam yóbbu la ci leer a gom yàlla jëlee la ci lëndëmu réer yóbbu la ci leer a xam jëlee la ci lëndëm ak rëy yóbbu la ci leer ak woyof wàcce sa bopp wala am solo te loolu ñu bari ci nit ñi dañ koo sàggane réeree nañ ko mbir waaw ku ci am tuuti wala nga xam tuuti wala nga mel tuuti yëkkatiku lislaam bu lislaam bëggul loolu moo tax yonent sa salaa sallam dafa bokk ci yiñ ko doon eh, taggee ne ko wàcce woon boppam mbooloo te mu gën ñëpp ëpp ñëpp tiim ñëpp kenn du ko natt moom moom kenn du ko natt kenn du ko nattaleeg dara kenn du ko nattaleeg dara kenn du